murid yi ñoo ma ne ma nga fa garamaat lii ñëpp maase mën waat ma di sangu jamono Bamba la tànn nga doon ci yi koy jëfal lu takk tey yaa ko jëfal ngir yow la dénk jamono sa baayu baaxik fi na woon ñëpp garamoon sa makke fañ la tegoon leeral na gaayi jamono boole nga mboolem gërëm muy wuri nga fokkolam Seex Bamba jox la abu cërëm li tax nga jiite jamono Seex Muntaxa te yaay Xaadim ngir moo la jox yoon wi nga moom moo tax nga ñëw toog di nu te yàgg nga yeem jamono ba bàyyi jiitu set ya des noon ya di ree na lekk mu tas yaa jug taxaw jëf ku ne gis say jëfa yem waa jamono Cheikh Barak yaa ko daa jëfal na woon ci moom di xar ndigal lu mës a digle sikkuwul ne yaa ca man waa jamono Cheikh dem Cheikh si ñëw nga ngoy ci moom di sàkku baax ak wayaf ku la ci raw mësula feeñ ci jamono Cheikh si fi woot ñàkk ayib maki murid yaak seen adab boo leen fi fekkoon duñ la daab si teyem na jamono bukku ci ñi yaa nga ca ñee diwaan amuñ fuñ lay ko ñee njiit nga fa ñoom ñi di la ñee te njiit nga it fi jamono yoonu murit ñëpp la wekk sunu sak nee yaay sunu mbéeg te yaay mbégum waa jamono yoonu murit yaay sini yaay bamba tey kenn ñëpp ngi ñëw di bof deraam yow yaay sangu waa jamono yow nu murit yaay seeni maam yaay bamba tey kenn du ko ngi ñëw di boof deraam yow yaay sangu waa jamono yow nu murit ñëpp ngi ñaan nga yàgga toog ñu di la seen yow raw nga dex raw nga teen géej nga gullëmbe jamono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 njën nga lu yiw maandu xarañ tamaan nga ñépp ab sëriñ yaay bamba ci jamono yow lu la soob di lenn jëf si dig la yow kenn du ko cof ñépp nga doy ñépp nga saaf sigil yilif nga jamono yow ko diggal bam gant ko ne xam ni naari ñal na ko te kenn du wax ba gindi ko ngir yaa di xubbu jamono sanal yu rëy nga finaal jommal na mboolem Sénégal ak daayu yaatu nga fi taal te dootu fay ci jamono pas-pas yaa ko yeesalaat muridi yaa leen soññuwaat diine ji yaa ko taaralaat te yaay ki gën ci jamono xoolal ba korona ñëwee ku ne di xool num carawee ci liñ la gën a teenawee ni nga déggee jamono ngir ñaari téeméer na ci ay million nga jël jokku la doy mu jox mi jëfu ju nga yàgg jëf ci jamono tiijaan yi woote nga jëlaat téeméeri million jexewaat ngir bëgg seen ji naat bégal nga mbooleem jamono xoolal ma ndaw ñi tabbi woon ci géej gi am ñu faatu woon ñaar fukki mil yu jëloon jox ñi ñu ba ci jamono marché Ocass lakk fi mil yu ni cas jox leen ko réew mépp ko gis sam amul ci jamono naal nga fi université ngir yokku ndaw ñi ak nité sa jëf yi maa ngi koy noté dinaa ko wax waa jamono dinaa la way ay way way ngir yàlla dolli sama may ñëpp a ngi lay waya ko rey ngir xam ni yaa moom jamono saalixu géy badar dalal te tëg wi noppalul boo doon fi lim lim taxawal doo noppi diirub jamono yal na nu yàlla rus ci yow nga yàgga toog ñu yàgga ñëw bégal nga mag bégal nga ndaw yaay wettalu waa jamono yal na la yàlla dëgëral baloo final mu njàppandal barkib kësan ci njàppandal saalix mi woon ci jamono yal nang fi sax ay ati at matali mboolem sey mebet muccal ci ndok muccal ci caat jëfaat lu yem waa jamono yal nang fi sax ay ati at matali mboolem sey mebet muccal ci ndox muccal ci caalaat ju farlu yem waa jamono